ñu ci waxtaane lépp loo xamante ni bi mi ngi jëm ci mbiru le 14 le 15 le mu mel ni ñetti bés la yoo xamante ni bi tegaloo na defe naa ni talaata la àllarba ak alxames muy ñetti bés yoo xamante ni bi waaye wi woote nañ ci wax ni autorisation ñu am ko ak ñu bañ koo am daañu amal li ñu bëgg a amal mu mel ni Ousmane Sonko waxaat na encore une fois ne joxe na ndigal fépp ci réew mi le 15 ñu amal ay doxu ñaxtu mars ngir wane ni am nañ lu leen naqari ci réew mi ak ni muy doxee. le 16 di bi nga xamante ne bi mooy procès am moom ak Mame mbay Niang euh, li am solo nag man dama jàpp ni réew mi dañu ko dëkkee ñu ko dëkkee mu am ñu ñu dénk amit ñuy laaj ñu gis ni ñi nga xam ni ñi ngi leen dénk ñi ngi doxal nu mu leen neexee ñi nga xamante ni bi ñoom it bokk nañ ci ñi nga xam ni bëgg nañ li nga xam ni moom lañ dénkoon ñoom it ñu wane seen bopp ngir wane ni kii ñu dénk munut kii ñu dénk nag moom mi ngi wër fu ne di wane man-manam ci ni mu ko neexee di ko doxal san autorisation soxlawu ko mi ngi def ay mitinam di rassembler ay doomu aadama yoo xamante bi fu mu dem wax fa li nga xam ni moom la def ak li mu nar ak li mu bëgg a def di dige mu mel ni ñeneen ñi nga xamante ni bi ñooy wujjam yi amuñu sañ-sañ def lenn ci lu mel noonu loolu nag dadu tegu ci li nga xam ni moom la ñuy wax yoon parce que tey bu fekkonte ni opposition bi dañu nekk opposition boo xam ni duñu ay responsable fu ñu woote balaa ñu fay jóge kurpañ ya jóg xeex ba am bu boobaa ñu ne leen yéen de li tax ñu di leen tere mooy yéen ci seen jëmmi bopp seeni ndaje datut wóor ci askan wi parce que saa yu ngeen daje rek indi ay problème ñi nga xamante ni bi nag ñoom lañ dénk réew mi dañoo seetlu ci seeni ndaje léeg-léeg ñoom ci seen biir ñu jàppante ci seeni ndaje waaye opposition bi musuñu leen a gis ci seen biir ñu amal am ndaje ba pare jàppante am fa bépp ndaje boo xam ni autorisé nañ ko ñu amal ko saa yu ñu ko defee ba pare maanaam bërëb ba sax day far set wecc parce que kenn ku ca nekk di nga wane ni kat ñun ñii kat ñu responsable lañ maanaam El Hadj Sidy maa ngi fàttaliku ay jamono bi mu bëggee amal fii nga xamante ni moom la ñuy wax place de l'indépendance mu ne daf fi amal li nga xamante ni bii moom la ñuy wax. Euh, Euh, li nga xam ni mooy sittingam ñu ne woon du ne mu ne leen bant du fa dam teyit bu waxtu wa jotee danañ respecter lépp kooku wóolu na njaboot gi nga xam ni moom la yore xam na ni ñi mu yor ay responsable lañ loolu aussi tamit dal na opposition bu Sénégal que ni gis nañ leen ñu amal ay ndaje yu baree bari yoo xamante ni bii benn problème amul ca ndaje ma ndaje yi nga xamante ni bi moom lañ woon a def ci ci place de l'Obélisque gis ngeen la fa daje ci mbooloo et pourtant ba ñu fa jógee dara dara xewu fa xoolal ndaje bi nga xamante ni bi Pastef woote nañ ko ci Kër Massar ñenn nit ñi dem fanaani ñu fa jógee amul lenn loo xam ni xew na fa waaye xoolal ndaje mañ leen tere woon ca Mbàkke li nga xamante ni bii moom la indi ak li mu yàqal ay nit ñu doon xëy di liggéey te mënatuñoo liggéey ak ñoo xamante ni bi seen liggéey foofa la doxee arrêté ba tey jii amatuñu place bu ñu liggéeyee te loolu yépp li ko sabab mooy ak tere lu ñu war ca tere loolu rek mooy li nga xam ni moo indi jafe-jafe ya nga xamante ni bii mooy li am mbokk yi opposition lii mu woote. maa ngi wax nguur gi ak ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy préfet yooyu nañu leen ko nangul ñu amal li ñuy amal ci jàmm ak salaam parce que surtout fois ni nangu nañ ko sénégalais yëpp danañ mën a xëy liggéey xale yi mën a xëy jàngi ñëpp mën a jóg def li ñuy def ci jàmm ak salaam waaye bu ñu leen ko mayul bu boobaa mën na indi li ñuy tuddee ay jafeñ-jafeñ ci réew mi économiquement sax réew mi day daal dee taxaw parce que ñu bari dootuñu sax sawara naan ñu ngay gédd benn bis damay ñëw ànd ak kànj ñuy ñëw di liggéey si mu ne ma waaw mooy bii passé le 16 16 bii passé bi ñu woowee Ousmane Sonko nga gis tëli bi vide parce que ñu bari xëyewuñu seen oto yi lu tax xëyewuñu seen oto yi c'est parce que wóolu wuñu ñenn ñi sax duñu liggéey donc nag il faut que nag président di tenir compte ci loolu fexe ñuy autoriser yenn yi nga xam ne droit la boo xam ne dañ ko am def ko ci constitution bi ngir tere bañatee am parce que tere sax warutoon di am waaye di ma léegi tere nag daganal sax mooy li nga xamante ni bii moom moo jafee am te tere moo warutoon a am donc il faut que ñu delloo siwaat xel yi le 16 bi nga xamante ni bii Ousmane Sonko donte sax dégguma ko mu wax ko ci kii mais ay ñoñam ñi ngi koy woote wax ni le 16 nañu gunge ki nga xamante ni kii mooy seen leader c'est très important le 16 li nga xam ni moom lañ wax dégg naa ñu wax wax ju am solo wax joo xamante ni bii ñoom woote wuñ lu dul jàmm ak dal wane ni am nañ seen leader boo xamante ni bii moom la ñuy gunge. Euh, ngir lekk delloosiwaat xelu dij kiy dem di wax ni drapeau blanc la yor ngir fas yéene ko tàllal jàmm la woote wootewut leneen lu dul jàmm kon ñi nga xamante ni bii ñooy force de l'ordre yi bu fekkente ni bii tamit ña nga leen di gunge nañu xam ni ay nit lañ yoo xam ne dañu wax ni dañuy gunge seen leader te demuñu lu dul ci jàmm ak salaam lañuy dem parce que réew mi toll na foo xam ni. damay wax ni li di wax naan dañoo toog ci pétrole di fowee almet loolu mooy li nga xam ni moo ci ne te fi mu toll nii nit ñi sës nañ te li tax nit ñi sës mooy doxalin yi nga xamante ni bi ñi ngi koy doxal ci pénc mi ñenn ñi gis ni ñi ngi bundu benn doomu aadama teg ko loo xamante ni bii kat nekkul loo xam ni lu jaadu la kon nañu delloo siwaat xel yi te fexe dëkk bi ànd ak dal dal gi lenn rekk mooy li koy maye mooy ñu fexe ba teg yoon ci yoon fekk yoon a ngi ci yoon problème du am te nañ fexe ba nit ñi gëm ni kat réew mi am na yoon loolu nag liggéey bu rëy lay laaj ngir nit ñi mën a xam ni réew mi am na yoon parce que dafa am foo xam ni fa la jóge